ay événement yu vraiment yu métti ñu nga xam ne ni am nañu suñuy bis ñu làkk li ñu toj euh, bu ñu gisee loolu ñuy fàttali nekk askan wi lii nii seen moomeel la ñoom ñoo ko moom président de la république ak ministre infrastructure ak ministre des finance jox ñu diggal na ngeen xool nan ngeen di amee ay yeneen bus ñu dem nag gis société bu nga xam ne ni moo gën a rëy si àdduna bi mooy Iveco kooku dimbale ñu tamit pour ñu am lu nga xam ne ni mooy 370 bus 370 bus yooyu nag ñu ngi jógee république tchèque république tchèque pour indi ko Dakar il faut que nga jaar Belgique nga yóbbu ko si port bi pour ñu ñëw te incha allah di si yenn xam naa ni d'ici fin d'année bi balaa fin d'année bi di jot incha allah nañ jot bus yi jàppale askan wi. Dakar itam